jóg dugg ci biir ba ñu jullee ba guddi gi xaaj seblaat ne ko saalihu mu ne ko mbàkke mu ne ko ci timis li ma dikkaloon bi ma dikkalee ana yow loo ñaanoon sëñ saalihu ne ko ah ne mbàkke jotuñu woon a ñaaw ñaan dara mu ne ko saalihu loolu dum la mën a dale mu ne ko dañoo ñemewu la nekk ci wetu doomi sëñ Tuubaa di ñaan dara loolu mooy war maanaam sëñ Abdul Ahad di mu ne sañu nekk ci wetu doomu sëñ di ñaan dara ca buñ ko waxoon ko mel ni man dana ñaan ba ñaan fa dara newut waaye loolu mooy war ma murit yi nañ xam ne li ñu bëgg ci sëñ Tuubaa li ñu koy may mooy yar ak teggin ak war ma ku ne xam na ni sëriñ Mbàkke Madina diggante su gàtt la ko sëñ Cheikh Ahmadou Mbàkke ay juróom weer lay doon lépp ñoo ko defandoo yàlla dogal sëñ Mbàkke Madina ñëpp xam ko ci wéradi asmaam ji métti jooju sëriñ Cheikh Mbàkke ñëw na nuyu ko ci guddi gi gannaaw gee di génn di delluwaat sëñ Mbàkke maddina di ko gunge am ci mag ñi ko jël kaal ak sëñ Mbàkke Madina daw teg ko ci boppam sëñ Baale dafa sëñ Mbàkke dafa xëcc kaale gi sànni ko ci àll bi topp ci sëñ Cheikh ba oto bi départ mu ne ana ku ma tegoon kaale gi am ci mag ñi ko ne ko man mu ne ko na mujj tey mu ne ko Mbàkke asma jëlaale yére mi ak lay bi mu ne ko Cheikh Mbàkke mi sama bakkan jaraluma Cheikh Mbàkke di gis kaale ci sama bopp sëñ bi nañu xam ne yoon wi ñu nekk yoonu warma la ca warma jooju buñ ko joxantewul sunu biir duñ ko mën a jox ñi ko yayoo muy njabootug sëñ Tuubaa gi ca ñoom sëriñ bay leen defar teg leen ci kaw ñu am seen njërmi léeg seenu baax ba wàcc fekk ci suuf nañu xam ñoom ñooy ñan jox leen li war suñu diggante ak ñoom ndax sëñ Murtala daana wax ne nett li waxi jàmbur jarul kaalawu te boobu ja bokki jàngkat xasida lay wax nettali waxi jàmbur nee na jarta kaalawu kon dox jàng ñaari dóore ñaari nóoru daaray ni jàng ñaar fukki jaalibatul maraaxib ak juróom-ñett tax nga jàpp ne kenn du kenn ku dul yow loolu ndax sa bopp la nan boole jàng xasida di ko sellal te am yar ami teggin ami ma loolu suñ ko defee li ñuy wut suñ digg ak Sëñ Tuubaa dinañ ko am te yoon yi moom mos nañoo laaj Cheikh Rafal Babul Muridiin na ko Fall lan moo di ak taalibe mu ne ah doom ak taalibe mooy xel mu rafet ku la gën a rafetum xel moo la ëpp ak taalibe am murid day nite ci nite am xel a koy def alxuraan li muy rëy rëy suñ borom borom xel yi lay waxal kon nañu jëfandikoo suñuy xel njabootug sëñ Tuubaa gii ñormal leen kenn ku ne li nga yëg sa bopp ba tax sam xel dal mooy boole gi la sëñ Tuubaa boole ci boppam bu buñ nee murit nga sañee geestu ana ñi nga xam ne nag sëriñ bi def na leen murit def leen i doom kon ñooñu am nañ cër bu déy bu rëy te sëñ Tuubaa moom ku man boppam la ku ko soobul doo bokk ci ak njabootam doo doon ab taalibeem waxuma la ngay doon doomam wala ngay doon sëtam kon képp ku taq ci sëñ Tuubaa nañ la jox lu ñu dencal sëñ bu buñ tasageew nañ la ko jox yaay borom ba noppi war ma jooju nag ñu doxale ko suñu diggante ndaw ñi xam ne mag ñi ñooy seeni kilifa mag ñi xam ne ndaw ñi dañ leen war a yërëm ñu ko sëñ bi waxee ci la matlabu shifaa ñuy dund loolu fexe ba liggéeyal sëñ Tubaa ci sunu jëmm yi Cheikh Modou Moustapha dafa am ci mag ñi koo xam ne bi muy soog a doon xalifa foo sëñ Modou Moustapha toog rek mu naan ko mbàkke ni ma la yërëmee yan bi ni mu diisee benn bi sëñ Modou Moustapha ne ko waaw yan bi diis bi ana yow loo ma ci yanul mu ne ko ah Mbàkke damaa xamul lu ma la mën a yor mu ne ko ah kay mu ne ko Mbàkke lu ma lay dimbalee mu ne ko dimbalee ma sa jëmm yow fexeel ba bu ma la gestu ni sëñ tubaa bëgg nga mel ni fexe ne mel soo ko defee sa morom def ko ma noppalu kon kenn ku ci ne loolu la war a fas yéene fexe ba dimbalee Seex Mamadul Muntaxaa mi boppam fexe ba ne man de fas naa yéene xar sama tànku tëbéy ci ni sëriñ bi bëgg ma mel ni ma mel nii lim bëgg ma ko def ma di ko def fi mu bëgg ma jaar fi ma jaar fi ndax liggéeyal sëñ Tuubaa tabax ay jumaa baax na tabax ay kër baax na bay ay tool baax na waaye liggéeyal ko sa jëm moo ko gënal ndax sëñ Tuubaa jëm yoo ko fi woon kon nañu gën a góorgóorlu baax a baax bàyyi xel ci njabootug sëñ Tuubaa gii bàyyi xel ci mbindam sëñ Tuubaa mi dolli kormal xaside yi du lu xew du phénomène bu xew nekkul loo xam ni ay programme ko tax a jóg xasida yi ak jaamu yàlla la xasida yi ak jaamu yàlla la dem nañ ba weesu ak jaamu yàlla ñoom ay jaami yàlla la ñu yoo xam ne ni sëñ bi doon defal yàlla dañ koy defal yàlla ni sëñ bi doon defal yonent bi sallallahu alayhi dañ koy defal yonent bi alayhi salatu wasalaam man nuyu naa Cheikh Abdoul Khadir fekk ma yor ab dollu xasida teg ko ci suuf yëkkati samay loxo jëm dafa ma ne fabal xasida yi ma fab ko mu ne teg ko sa kaw ma teg ko sama kaw mu soog ma jox loxo ne ma lii kenn du ko teg ci suuf kon xasida moom ku koy teg ci suuf mu teg la ci suuf dañ koy teg ci kaw ngir mu teg ñi ci kaw sëriñ bi sëñ Ahmadou Diaw Pakha fekk na ko fii ci këru njaareem gi yor xasida yu rafet wutal ko fekk yuy der yu ñu rëdd mbind ma rafet lool sëriñ bi yëkkati ko xool ko mu yàgg mu ne ko Ahmadou fonk nga ko lool mu ne ko Mbàkke suñ ko mënoon a romb romb ko mu ne ko Ahmadu mu ne ko Mbàkke mu ne ko diir bu gàtt nit dina ñëw fii ci kër gi di seere te naan ko baax dëkkoon na fi waaye bu boobaa de sëriñ bu mat sëriñ dana jafe lool te ñoom ñii ñoo fay taxaw taxawaaye sëriñ bu mat sëriñ mënul Ahmadu mu ne ko Mbàkke mu ne ko waaye boobaa sama xasida dana yomb ba mel ne surnaalum nasaraan yi waaye li ciy jariñe dootu nekk ci kayit yi sama loxo lay nekk képp ku am këyit di ca warmaal ko fonk nga may tolloog yow ca ca ñoom di ca sotti barke nga di ko jariñoo koo xam ne yomb gi rekk tax nga am ko nag ma bàyyi koog yow mu mel ne surnaalum nasaraan bi kon nan gën a fonkaat xasida yi gën a fonkaat njabootug Sëriñ Tuubaa gi gën a warmaalante ci suñu diggante suñ ko defee li ñuy wut lépp danañ ko am wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf bàlleen wax bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu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 gu gu yàlla gërëm insha allahu taala ndax seddu nañ ni waxtu saa yu ba waxtu julli jot dañuy bay lépp julli delluwaat ci njàng mi ñëpp maase jublu penku kon loolu liggéey bu am solo la li def rek mooy rafetlu ko bu baax te ñaan sunu borom tabaaraka wa taala mu bëggal ci sëriñ Touba li sunu jëwriñ ji wax nag doyoon na sëkk ëppoon naa teg yeneen i kàddu sax li ci ne rek mooy nu gën a farlu te gën a namm sunuy pëstéef te xam ne li feeg noo ngi ci kaw suuf sunu dox àggagut di feeg demuñu ba daj ba dajeek sëriñ ba joxanteek moom loxo mu feeña la lu ngërëmam ci nun sunu dox jeexagut sëñ Tuubaa daana wax lu bari ne dana ko wax mag ñi ne leen lu ngeen am ca yàlla na ngeen ko jéggi te xam ne lu ko kawe ma nga ci kanamam kon saa yu ñu defee jataay bu mel nii ci jàng xasida muy lu rëy nag lu jafe itam ndax waxtu dafa jafe alal ji nga xam ne moo koy taxawalit nit ñi fonk lool ba nay koo def ci yu bari loolu lépp bu ñu amee pësteefu man koo dajale nag def ko ci xasida Sëñ Tuubaa yi te jëmmi Sëñ Tuubaa tax loolu buñ ko gis nañ ko jéggi te wutiwaat lu ko gën a kawe ci sëriñ ba te nu teewlu bu bari itam ne sëñ Tuubaa xasidaam yi positif ba mu ko daa bindee xel moom mënul mënta daj ne des na ci àggati waxuma ne positif waaye jafe-jafe yi nga xam ne moom la ko doon bindee itam ak lam ca doon jànkonte loolee lu mat di teewlu la ci bërëb bi mel nii xam ngeen ne bis bii tey di ñaar fukki fan ci wetu weeru septembre ci def fi sëriñ bi bàyyi ko woon ci la duggoon ci biir bato ba bis ne suba la départ nag wuti Gabon te keroog bi mu duggee ci bato ba ci la coono yi tàmbali ak jafe-jafe yi wax nañ ne kenn ci mag yi dañoo xam ne sëñ Ba ci ko yoraloon gaalam gi nga xam ne daawul tege fi suuf bi mu ñëwee ba sëñ bi dugg ci bato bi sëñ bi da koo nongul boppam yanul ko boppam ngir wane ne keroog la la la coono yi tàmbali. keroog nag ba ni mu ñibbisiwaatee mën nañ ne lépp aw métier la ak coono te kenn mënu ko xam ci mbindam xasida yi mu bind ci géej gi mënoo ci xamee ne jafe-jafe sëñ bi daana dund dangay xool lu mel ne waqaani xafidun qaahirun jëll maani nga ne moo wax soxna soo gaawaan ne ko bi mu koy bind booba dafa nekk ci biir soldat si soldaar si def lu ne lu bon ci kanamam sobe si itam ñu di ko tuur ba mu agsi fi mu ne nga xam ne mujj na ci kaw lalam la daa jullee kenn ci kilifa yu baax yi daana nett li ne am na bis fi mu ne ci néeg bi ñoom dañ daa tuur sobe si ba fi mu sujjóot mu xawoon na agsi ci fi moo tax mu mujj di jullee ci kaw kaw lalam ci jamono joojee la bind xasida googu waqaani xafiidun qaahirun jëll maaniu jamia al ada wal xayru lil yowma أجارني القهار من جملة العدا وخانت فم أرماحكم والمدافع ba xasida ga ak nga xam ne doo ci dégge lu may ak cant ak mbégte ak gërëm yàlla subhaanahu wa moom ci boppam nett li na itam ni benn bis ca jamono joojee jël na ay bant tegale ko ci buntu néegam di ca julli def ko jàkk ki jiite woon bërëb boobee ñëw tasaare jàkka ji yàqte ko ne ko fii jàkka amu fi te bul yàq soldaar si am ko ñuy wax yëlli say ñëw di xuloo kookee sëñ bi nee na ci biir bi ñuy xuloo ak di wax te di ko wax ci wolof ci laa nag def xasida ak raditu anil mawla taala alladi rabba fuaadi wa agnaani xasida ba mu àggee ci wajaal bihi masjidi raxba ci la ko suñu borom xamal ne ko may na ko ñaari jàkk benn ci njéeréem ak benn ca ca Touba sëriñ bi noonu mu doon binde xasida yi ak jamono jooj yi lu mat di fàttaliku la lu mat di bàyyi xel la xasida Sëriñ Tuubaa itam dara melut moom mbindum sëñ bi ci moom moo moom la moom moom la dara melut moom Sëriñ Tuubaa wax na ne yàllaa ko may ci mbind loo xam ni mayu ko mbindeef ana la ni fil xatti maalam yakuni wala yakunu xaaliqin li mumkini maanaam mbindeefu dootul am li sëriñ bi am ci mbindam ndax mbindum sëriñ bi lépp yàlla da koo nangu te léppit ci alxuraan la balle te itam sunu borom da ko musal ci mbooleem luy njuum te lépp lu sell lu laab la li sëriñ bi doon junj léegi mooy jëmmi xasida yi ay mbindeefi leer la yoo xam ni xasida gii nga tiim day day junj mbindeef yooyee ma tax lu sell la lu mat a bay xam loo xam ni dafa am jokkoo ak aras suñu borom buñ koy jàng aras ci boobam di jaayu jaayu mbégte mu yëngal xoli ambiyaw yi ak saalixoona yéeg nit ñu baax ñeeg malayka yépp loolu mbind mu rëy la kon nun ñi koy jàng war nañ koo jànge ak teggin yoo xam ni moom la yelloon te bañ cee sàkku daray àdduna li fekk ñi ngi bëgg bo yaa ngi bëgg boo jàngee xaside gi ñu fay la nangam gis naa ne dese nga lu bare bare bare man suñu yitte mooy moo war a doon rek am sëñ Tuubaa yàlla na ko am te niñ koy amee mooy lii ñuy def ñu di ko def ngir jëm moom ak jëm mi suñu borom tabaaraka wa taala dara bañ koo rax yàlla yàlla defal tawfeex yi ak mooy maa ngi jéglu guddal na wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jamono mooy toll koo xam ne bu jafe-jafe amee dafa laaj léeg ñu ne tekk jox koo xam ni la muy wax ku ca bàyyi xel jafe-jafe yooyu danañ deñ waaye bis bi kenn ku ne xam nga ni baaxoowuñu mu am ay waxtaan waaye liñ bëgg ci njariñ moo yegg foo xam ni buñ ñoon ñun ñëpp nu jariñu ci xasida yi ak sëriñ bi loolu rekk la kon maa ngi jéggulu bu baax a baax ci kàddu yi ndax bisu xasida lañuy wax te tur wu ne jëmm lay woo waaye jamono mooy yàgg foo xam ni buñ sañoon dañuy tënku ci ndigal rek ki fi nekkal Sëñ Tuubaa di wax ñu di ko def loolu daal moo mat a bàyyiwaat xel te wax yi bari na léegi lool gis-gis yi bari lool lu mat a moytu la nag jamonoy balaay wax ci lañ toll yàlla nañ ci yàlla musal kon noo ngi ñaan ci barke xasida yi suñ Muntaxa suñ borom bàyyi ko fi ak njabootu Sëñ Tuubaa gépp ak nun donga yi sëñ Hamza mii tamit nga xam ne soob na sëriñ bi mu jiital ko ci liggéeyu xasida yi noo ngi ñaan suñu borom may ko fan gudd ak ku wér sëñ Basiiru mii moom la fi teewal mu suñ Bas mi sëñ Fallu kon noonu ma ko waxee rek damay bañ a guddal te jàngkat yi ñu ngi fi te bis bi bisu xasida la loolu rek moo tax yooyu kon li nu gënaloon mooy jàng ba ñaan jot ñi fi nekk ñëpp te doon ñoo xam ne luñ wax nit ñi mën koo jariñoo ñu jox leen ñu wax waaye loolu neexut a téye kilifa ba waxtu woowa kon kàddu yi ma fi doxal yëpp maa ngi koy tuubal sëñ Tuubaa tey jégglu bu baax a baax tey ñaan nag ci darajey xaside yi sëñ Tuubaa mi nga xam moo liggéey xaside yi te dexañ ci lim ci dexañ sëñ Muntaxaa mii ko fi nekkal doon fi sëñ Tuubaa maa ngi ñaan ci darajee xasida yi ak bëgg ku nu ko ñaanalal ci lépp lum yéene ci xolam bii ci mborit yi noo ngi ñaan ci darajee xasida yi loola mën a am noo ngi koy ñaan ci darajee xasida yi waaye war nañ ko dimbali tamit ci yéenam jooju mu am ci noonu kon noo ngi ñaan ak defaru ci biir ak ci biti ci barkeb xasida yi noo ngi sant ñëpp tey gërëm ñëpp sëñ Touba mi nga xam ku mu gis mu am njariñ ku mu yëg loola am njariñ noo ñaan mu gis ñëpp yëg ñëpp ci jataay bi ñu ñëw ñi ñëwut ñëpp jërëjëf anna rasul lallay basarani wal bisur inda rasul lillahi mahmulo unbitu anna rasul